ngeen jëf mbokk yi ñu siiwul fii ci people 221 ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax di am mbégte ci ñëwaat ci seen jotaay euh, di nuyu sunu kilifa diine ak sunu kilifa aada yi di ñaan réew mi di Sénégal yàlla fi sunu borom doole jàmm. tey ñu amati mbégte dalal koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi donte bariwul lu muy feeñ ci demee nii waaye damay wax ni doon na boroom xam-xam boo xamante ni réew mi des fois dina toll foo xam ni. il fallait que ñoom ñooy génn mën a wax ngir sauver askan wi nga xamante ni ñoo leen di déglu ndax tey mën naa ni ñoom la fi eh, yàlla sunu borom teg pour ñuy gindi jaam ñi mu di sëriñ Alioune Thiam fas yéene seq moom waxtaan ci tolluwaayu jamono ak ci wàllu xam-xam sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoog ñi lay siiwal fii ci people 221. waaw alhamdulilah asalaamaaleykum baal ma bismillahi wa seetaan rajim wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah an asaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la hawla wala quwwata illa maa ngi fay na yow di fay tamit képp ko xam ne mi ngi seetaan si 200 people 221. di mm-hmm. leen daragal suñu kër bi ngeen ñëw nii macha allah alhamdulilah. Mm-hmm. Euh, nuyoo bi am na solo tey fi may njëkkee euh, ñu jëm làmb mu di Siteu ak Papa Sow coow li bari ñu gis combat bee paase euh, deret juge woon ci ba combat ba yàq woon tey lan nga ñu mën a wax ci combat boobu. waaw combat boobu de xam naa liñ si gisoon rek lañ si waxaat xam naa gis nañ si jafe-jafe daal comme. ak amam daal ñu leeragul si sin bët ba tey. ci combat bi waaw combat boobu. combat bi yaakaaroo mu am. jàpp nañ ko ba mu xam ne bëree ko moo des waaye gis nañ ne daal jafe moo si nekk boo xam ne nag li seen kanam mu ngi seen kanam waaye daal jafe-jafe lañ si gis boo xam ne bu naree am tamit ay mbiru xeex ak yooyu daal gis nañ ne dana si bëri trop trop trop. ah sëñ combat bu yàquwaatee bu yàquwaatee dina métti de. ah combat bi daal lañ si gis si côté xool moom. Mhm. wax dëgg yàlla leerul dara. Mm-hmm. xam naa dama si bañ a gën a xóotal rek waaye mm-hmm. liñ si gis daal. Mm-hmm. xam naa daal leerul si ñun moom. mais ñaari mbëri boo leen xoolee mystiquement ci wàllu xam-xam kan nga jàpp ne moo gën a bare. waaw côté ñoom ñaar nag si côté a baax. waaw waaye daal liñ si gis daal mooy combat boobu est-ce dana am. Euh, d'accord ma ñëw ci sama ñaareelu question. di wàllu xam-xam. ma ñëw ci li nga xamante ne mooy wàllu seet. wàllu seet bëgg naa nga dil ma ci ay leeral ak. Euh, ci yan anam ngay seetee. waaw alhamdulilah macha allah si laaj boobu nga laaj yi nga xam ne moom moo ñu tax a jóg euh, dañuy yëngatu si ñaan te yàgg mhm. nañ si lool. Mm-hmm. te damay wax ne ñaan bunt bi seet la mm-hmm. waaw te yonent dafa waxoon lépp loo leen dugg na ngeen ko xool mm-hmm. xool boobu nag ñun dañ koy defee si anam yu baree bare bu dee xeeti seet yi la ñun jàng nañ yëpp jàng alxuraan wutu ko gëstu si côté listixaar côté seet si alxuraan côté fanaanoo yooyu yëpp dañ koy def kanta nag soxlaa nit ki rek mooy tax nga xam ban seet ngay seetee nit ki mën na la oo la jafe-jafe boo xam ne dana laaj fanaanoo loolu dañ koy def fekkee nag en distance la ba tey mën nga ko xoolal. Mhm. saa nga fanaan la ko mën na la oo nga xoolal ko benn dañ koy xool si ramlu dañ koy xool si alxuraan dañuy xool si ndox. Mhm. yooyu yëpp dañ koy xool te xeet seet yi ñuy ñun amuñ ku ñu si mën a seetal. te waxuñ la loo xam ne dëgg la. Mhm. waaw dañ lay xoolal ba xoolal te tamit sa côté rawxaan yi. Mhm. Eh, nga xam ne da nga xam lan lañ bëgg ak lan lañ bañ. Mhm. ak lan ngay def tamit ba mën a jot ni kii. si ay bëgg-bëggam ba mën koo faj. moo tax sëriñ su bëri ñu ngi ñaan waaye seet lañ mënut. te seet ndax nit ki damay gis ne man dañ may oo ñu bëri di mu déclaré ne fay naa lii si sëriñ fay naa lii si sëriñ waaye ba tey sama soxla fajuwul. waaye da ngay gis ne boo leen xoolalee rek da ngay xam ne ñii buntu bu leen ki waroon a jaar pour ñaara leen mu nangu buntu moom si boppam lañ xamul moo tax ñun seet amu ci lu ñu ci wax nit muy dañ mhm. xoolal naa nit ba mu ne ma xanaa dangaa xam sama mbokk mu wax la dara si man mhm. moo tax ñun lépp li la xoolal wax la ko rek bi ñu la wanee yoon booy jaare fekkee da nga am mhm. bu dee mucc nga bëgg da nga mucc ñu xam ne say rawaan la ñu gis ñu xam lan lañ bëgg ak lan lañ bañ ma ñëw ci li nga xamante ni moo di wàllu noob jamono ji ku jub ni damay noob ku jub ni damay noob te secret bi ñu bari tey ji ginnaaw yàlla sunu borom yaa leen dimbali ba jox leen ko euh, secret noob ak ci la ñu noobee waaw noob dafa ñoom moom bëri na ñoo xam dañu ñëw man sama kër di ma mm-hmm. laaj nan laa koy liggéey léegi waaw secret moom mm-hmm. côté noom man boole naa ay nit ñoo xam ne euh, waaj jigéen bi nee na ma sëriñ bu nekk taxaw naa fa pour ma boole mbaa waa ji pour ma takk ma mm-hmm. ba wan ma ay sëriñ yoo xam ne montant yi mu leen wan si xaalis li mu leen yónnee ak li nga xam ne moom lañ ko wax nag dañ ko def yëpp mm-hmm. def nañ ba sonn gisuñ dara mm-hmm. moo tax noob dafa am si yoo xam ne da nga koy tarbiyowu mm-hmm. ba xam ko teg si tamit nga xam tabiaa ni kii xam biddiwam xam em nu joowam ba nga xam ne da nga mën a jàpp ni kii euh, biddiwam ba mën koo noob jàpp ko ñu bëri nag am elmu nu joom moo leen tësi côté ñaan te loolu boo ko amul pour nga noobal ni jàpp ko dafay jafe ñun nag dañuy noob noob yoo xam ne benn <coughs> mën nañ la ko yónnee fi nga nekk mën nañ la ko defal fi nga fi fi fi ñu nekk ñun mën nañ la ko fa defal foofu mm-hmm. ko mënoon doom nag boobaa incha allah mën nga ko jàpp ku mm-hmm. mënta doon nag mm-hmm. passion yi ñu defee nag bari na trop waaw bari na trop mais est-ce nopp tamit tey ñëpp lañ ko war a defal waaw ku nekk mën nga ko defal nopp fekkee euh, caaxaan taxul ko jóg waaw mën nga ko defal noob ndax tamit danaa bëri xale yi lay oone la damaa bëgg nit nangam <clears throat> damaa bëgg nit nangam. Mhm. dama bëggoon nga noobal ma ko pour mu nekk sama soxna. Mhm. voilà loolu nag boobaa fekkee soxna rek la si bëgg boobaa yow war nga ko mën a noob waaye boo xoolee ba gis ne seen biir ànd na baax na. Mhm, njariñ mën na si soqee ko war nga kaa mën a noob dimbale ko si mu jot si. waaye tamit nit da nga gis mu gis benn nit boo xam ne. Euh, bokkuñ dëkk ñoom ñaar. waaye dañaa da dafa nekk foofu dafa sàkk lu mu fay ut mm-hmm. léegi nag pour mu nopp nit ki am lu mu bëgg si moom loolu tamit lu baax la xam ku nekk bitim réew mm-hmm. nekkal sa patron pour nga nopp ko mu bëgg la mm-hmm. loo bëgg si moom nga jot ko loolu dafa baax yëpp ñu ngi siy dimbali ay te képp koo xam ne tamit dangaa nekk jigéen di sàkku nit mu takk la te njëriñ da nga si bëgg foo mën a nekk dañ la ko noobal te buñ ko noobee dañ koy jàpp ma ñëw ci li nga xamante ni jamono ji ñu bari ñu ngi dox te amuñu ko moo waral ndaw ñi ñi di dugg ci ay tooxi doona mu di wàllu kaaraange euh, wàllu kaaraange ma gis ci ñoo xamante ni tey dimbali nga leen. ba mën naa ne assurance sax la ñuy doxee. waaw kaaraange nag damay wax ne moom mooy mbir mi mooy buntu mbir yëpp hmm. ndax nit ki boo amee bayra am noob lépp loo soxla nga am ko sa jëm te amoo kaaraange. Hmm. damay wax ne boobaa li nga bëgg amagoo ko hmm. waaw kaaraange nag ñu dañ si liggéey yoo xam ne bu def sangal la hmm. ndax da am ñoo xam ne la man sangu mënu ma si hmm. na ñoo xam ne nag dañ naan man takk mënu ma si dara waaye nag alxuraan ma bàyyiwul dara ndax dafa wax ne maa faral naa fi kitaabin sayin am na yoo xam ne tey bu dee takk rek nga bëgg mën nañ la ko liggéeyal si takk bu dee sangu rek nga bëgg mën nañ la ko liggéeyal si sangu am na si yoo xam ne xeeru teen lañ koy booleel bu të xeer yooyu tey bu ñu lekk liggéey la yónni ko fi nga mën a nekk nga koy sangoo lu nit jéem si yow sotti. Mhm. waaw te loolu dugg da nga génn te am na si tamit benn mbir moo xam ne tey boo àndee ak moom naa dañ si continuer dañ si agsi mooy benn téere bu ñu liggéey. Mhm. boo tey boo si ak boo ko amee si mhm. la neex mën nga ko liggéey lu la neex mën nga ko jaay fu la neex la bokk. am na si yoo xam ne sangal la am na si yoo xam ne dañ la koy liggéeyal. waaye boo ko amee moo xam si entreprise nga koy def. moo xam sa kër nga koy def moo xam ànd ak moom. Hmm. waaye da ngay mucc. Hmm. da ngay mucc bu baax a baax. Hmm. ma ñëw ci wàllu bayre nga yor secret bayre boo xam ne bari na nit ki da nga koy ñaanal bayre mu génn ñu naan ko diw ak diw ak diw mais sax secret bayre mooy bayre boo xam ne day ànd ak mos. waaw bayre nag loolu moo ci gën a am solo nit ki bu amee bayre ñu koy tudd amul dara mhm. loolu da ngay indil sax mujj gi ay cat la koy indil mhm. ak ay gàllankoor mhm. waaye nag ñun bayre ñu ngi ci liggéey boo xam ne bu ñu la ko defalee dafay ànd ak wërsëg ak la ñu composé ñun ci la ko ñu ngi ciy jëflanteel ñoom ñu ngi sant yàlla ndax man képp koo xam ne mas na jaar ci sama loxo da ngay indi ñeneen kañ waaye doo génnaat te fii bëri na sëriñ si xam dañuy ñaanal nit ñi di leen daw waaw te jël alal jàmbur si mbir ñaanal nit ki ba pare di ko daw xam nga loolu doy war la mhm. te ñun nag képp koo xam ne bañ dalee ñaanal nit ba léegi mhm. yaakaar naa ñu ñuy jëflanteel ba léegi mhm. ñoom mosuñ génn seen loxo xanaa dañuy yokkal ñi nit te loolu moom lu ko maye rek mooy nga nekk nit koo xam ne ngay jub boo jubee rek lépp loo dugg rek yàlla da koy sottal ma ñëw ci li nga xamante moom waaye moo di wàllu këyit wàllu këyit nag buñ ko waxee ñu bari jàpp nañ ni moodu yi ngay def mooy ki nga xamante ni day xëccoo wala ki nga xamante ne day déposé wala ki nga xamante ne dafa am ay problème mu këy problème mu kër. Uh-huh. nga leen ci dimbali. waaw euh, këyit moom euh, si poso bu nekk lañ koy liggéey. ku mm-hmm. bëgg a tukki. ku nekk si dëkk jàmbur bëgg fa kayit mm-hmm. pour mën a dem benn del si mm-hmm. loolu noonu rek si tabaski bi nii rek am naa si ay résultats yoo xam ne mm-hmm. yàlla moo ñu ko defal nag ndax am na yoo xam ne sarik fadullah yi ci man incha allah dafa am mbir yoo xam ne yàlla moo koy xool si jaam bu ko neex mu may ko ko fii bëri ñoo xam ne ñaanal nañ nit si kayit ba sonn mënuñ ko am waaw ñun nag yàlla suturaal nañu si te tabaski bi rek desuwaar naa ay nit ñoo xam ne dañaa ñëw pour sant yàlla si boole gu ñu yàlla boole seen loxo seen kayit jaar si seen loxo waaw a a boole ko ay nit mhm. loolu ku si mucc rek boo ñaane yàlla mën na ko nangu ndax mhm. taqullaha wa yaalimakumullah ku ragal la yàlla a xamal mhm. léegi nag xamal gi ñu yàlla xamal ne si côté kayit ñun euh, def si résultat bari na trop boo xam fekkee da nga nekk Sénégal fii bëgg a tukki am na si secret bi ñu lay liggéeyal da ngay ut ñetti ndoxu teen yu bokkul dëkk bu ndëkk liggéey la foo a da nga fay dem dëkk boo bëgg a tukki boo dugalee kayit kayit dina da nga dem boo nekkee si dëkk jàmbur bi mën nañ la ko liggéeyal foofu noonu yónnee la bagage yi nga sangoo ko kayit boo dugal dina génn te loolu nañ si dara mm-hmm. am na si benn jigéen mi ngi nekk fii ba Canada mu ma booleel ñetti xaritamit jigéen mm-hmm. ñoom ñëpp sama loxo lañ amee kayit mm-hmm. te loolu loolu yëpp dañ koy wax ngir sant yàlla ndax daf yàlla dafa wax ne lépp lu mu leen defal la na ngeen ko wax ngir sant ma sant goon rek si la waxee rek waaye kayit goo xam ne képp ku ko soxla fekkee résultat rek nga si bëgg boo ñu ooyee incha allah yàlla daan ko defal. Mhm. ma ñëw ci li nga xamante ni jamono ji daanaka tas na sëy yu bari. Mhm. jamono ji kër yëngu na. Mhm. Euh, mu di wàllu impuissance sexuelle di wàllu néew kàttan te ma gis ci ñoo xamante ni. tey ginnaaw yàlla bu ñu demee bay. am bant sa jëmm ji moo tax ñii dem nañ ba dénk la seeni doom te li nga am ci ay turandoo kenn xamul nu mu toll ci wàllu kattanu sëy waaw sant yàlla rek ndax dañuy wax ne alxuraan boo ko xamee. Mhm. Euh, lu loo soxla la da ngay dem jël ko. Mhm. waaw loolu nag lu koy maye mooy ñu bëri euh, pour ñu def ñàkk euh, leen mayu résultat si ñaar rek mooy ñàkk xam. Mhm. ak ñàkk jub. waaw ndax bu fekkee yàlla dimbale na la nga jub xam rek. pour yàlla may la résultat li ngay def dafay yomb ndax bu njëkk mag ñi duñ daan génn si télé di wax. si mbiru ñaan lu tax nag nit ñi di ko def léegi. benn affaire moo si nekk bu fekkee génn nga def ko yàlla defal la tawfeex nit loxoom. aajam fajoo si yow rek boo wartoo noppi ko mm-hmm. da ngaa war di wax mm-hmm. te jamono nag buy dox da ngay dox ànd ak moom loolu rek moo waral seen génn mm-hmm. waaye ñun bëri na ñoo xam ne ñun dimbale lañ leen te gis ni rek la ñuy def wax ñu seen soxla seen soxla faju loolu nag sant yàlla la fekkee tey doom nit ki da kaa amul wala côté kàttanam bu baa lañu xam la moo ko waral si moom ndax fekk da ngay gis nit koo xam ne kàttanam dafa néew te fekk mbiru rab moo ko jàpp téye lu mu soxla du ko mën a am si jabaram loolu nag képp comme daal boobaa ñu bañ laa liggéeyal kàttan dañu xool lan moo waral sa néew kàttan mm-hmm. bu dee jigéen la bu mënta am doom dañu xam lan moo waral mm-hmm. ñàkk am doomam mm-hmm. loolu yëpp buñ ko xoolee gis ko dañ la ko liggéeyal bu fekkee kàttan la foo mën a ne am na secret bu ñu lay liggéeyal alxuraan rek xorom nga xëy boole di ko naan incha allah yàlla dana may kàttan boo xam da nga koy deyaalee man xam naa paa ba xam am na cent te boo demee këram mi ngi am njabootam yu ndaw yi ñu ngi dund mu ngi am ay doomi ndaw te loolu noonu li ko may rek li saafara la dee ko naan boole ka xorom mm-hmm. am na si yoo xam ne ñaam mi nga koy boole toggee alxuraan di ko lekk mm-hmm. kàttan na nga koy deyaale doo ko néew la mukk hmm. waaw doo ko hmm. néew la mukk hmm. bu dee jigéen la tamit am na loo xam ne bu ñu ko liggéeyee si ganaar nga koy booleel togg ko def ko saafara togg ko ñu la nekk waaw ndax dañ ko gëstu xam ko jàng ko am ba tarbiye ko ba am ko moo tax lépp lu ñu si def rek yàlla dañu si bay sutura daal moo tax résultat ko a ñu ko ñu amoon waxtaan bu neex sax te doyul damay wax ne li duuf ci nag bi xajul ci cin bi mu di Serigne Alioune Thiam xam naa question may waaj a laaj nag nga ni kii ku sopp la sànq vraiment gis yaa ngi wax te benn benn benn benn téere. Ah. téere boobu nga téye sa loxo mën nga ñu ay leeral. waaw macha allah sëriñ bi téere bi. Mhm. Euh, damay wax ne ku ko amul si Sénégal bëriwul. Mhm. ku ko amul tamit si biti réew. Mhm. bëriwul. ndax moom duñ ko awee der. Mm-hmm. doo ko awee toile doo ko awee dara da nga koy liggéey rek. Mm-hmm. escorter ko. Mm-hmm. léegi nit ki da koy def si poosam. benn na def si posetam. fekkee dafa yor oto buy dawal na dugal si oto bi. fekkee da liggéey ay tubaab tamit na am. fii ngay liggéey kenn du la dàq. ma am na benn waaye bu ne ma téere ba ma ko amee ba léegi fi ñu doon wàññee ay nit. wàññi nañ ba excessivement autrement wàññi dañ maa të. ma ne ko dafa am yoo xam ne nit dina koy wax sax ñu yaakaar na dóor la. Mhm. te fekk boo jëflanteewu ko dañ nit ki doo ko xam. Mm, voilà mm. boo ko jëflante nit ko xam te mhm. nit ñi dañ lay fay xeex. Mhm. te loolu bari na si biti. ndax da gis ne biti gi sax am na Sénégalais yoo xam ne ñoom nee ñooy xeexante. waaw loolu nag tey bu lay la dimbalee nga am lii. Euh, kenn du la jëlee fi ngay liggéey da nga fa nekk ba heure bu la neex nga jógee ko fa yaa bëgg a dem Sénégal dem Sénégal waaye kenn a faa jëlee mm-hmm. samp nag ñun dañ koy def si mm-hmm. téere bi mm-hmm. dañ la koy defal tamit si samp sa alal ba du yàqooti waaw téere bi ko am lépp lay def lépp allah mu la jël si euh, numéro téléphone bi mu ngi noonu di daw ci régie bi euh, sëñ bi dañ lay bu baax di ñaan yàlla si waxtaan wi ku nekk yàlla na fekk si jàmm aaji bi wàcc si ñun tamit yàlla yàlla faj comme ni daan fajee yeneen yi in uridu ila islam mastata'tu ma tawfiqina illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa mm-hmm. rahmatullah jërë ngeen mbokk yi ñu doon topp du ñu suivre euh, ñu ngi leen di jox yeneen dig daje ci suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf